autoroute Ila Touba di 113 kilomètres de route di téeméer ak fukk ak juróomi kilomètres yoo xam ne ni lépp dafa tàlleeku def ñaari yoon jëm si dëkk bu sell bi di Touba lile nag nguuru Sénégal daal di koy am ci ndimbalul réewum Chine nag koppar yi nga xam ne def nañ ko ci toll ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay milliards autoroute bi ci ab fàttali ñi ngi tegoon xeer wi ci fukki fan ci weeru janvier ci atum 2015 ci taxawaayu xalif général bi fi woon di Serigne Sidi Makhtar Mbacké liggéey yi toll ci ñetti at ak genn wàll di dat boo xam ne ni jàppoon nañ ni mënu fee yemb bile am ay caméra de surveillance waaye itam méngoo ak jamono ci autoroute yi nga xam ne ñu koy gis ci àdduna wërngal këpp li nag di gànjar goo xam ni réewub Sénégal am na ko te jamono ji mi ngi koy tiitaroo ci mboolem sous région bi nga xam ne ni jàpp nañu ne Sénégal moom moo fi njëkk am autoroute bu am dayo bile bi nga xam ne ni ci lañ ko ñaar fukki fan ci weerub décembre bi la ñu génn ki nga xam ne moo di jiitu réew di président Macky ba ci dëkk bu sell bi bi Ila Touba bi di nga fay juróom-benni téeméer ci ndakaaru ba agsi fi nga xam ne moom moo di Touba di nga fay ci lu toll ci ab junni loolu ñenn ñi jàpp na na ñi ci cee jóge Touba daal dem ndakaaru faj say ite daal di dellu siwaat ci boobule inauguration nag ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre mi nga xam ne moom la boo xam ne réewum Sénégal ñoo ko bokk ko moom ba tax muy fësal ñaan nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñaanal yi nga xam ne nii defal na ko réew mi yëpp boo xam ne itam njiitu réew mi waxaale na ko ci biir discours am mooy yenn comportement yi nga xam ne ni Sénégal dañu koy faral di am jàpp ne autoroute nag war na am ay teggin yoo xam ne nii dañu ko cay war di respecté waaye itam muy fësal ne barrière yi nga xam ne ni dañu ko cay def ngir jur gi di bañ a jéggi tali bi loolu naa indi jiyee buñ ko respecté wul wala sax ñu koy dagg ba tax na mu daal di proposé ab solution ñu daal di def courant ci biir giri yooyu lee ba tax képp ku ko laal mën a laa bañ a lor waaye tam ngir ñu daal di respecté li nga xamante moom moo di norme yi kon nag li ci des moom mooy sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy jël autoroute Ila Touba boobule waaye chauffeur yi nga xam ne dañ daan nemmeeku ci ñoom ak ñàkk yar waaye ñàkk kaaraange ci kaw tali ñu gën xool waaye tam ñu gën a indi acte responsabilité ci naka la dawee ci autoroute boobule waaye tam régler li nga xam ne moom moo